الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه نيجي سراج سارق ولو هو رجل ولا عبد الجام له نيال لكن كنيك سنيوم نار ان يجمع مدجره هراي رات اي غور اربان ينت في نكاح انت سي góor mën naa takk ñeenti góor jaam mën naa takk ñeenti góor kon góor ay jaam kenn ku nekk si ñoom mën naa takk ñeenti góor yoo xam ne ay julit lañ wala ay ahlu kitaab waaye nag ñoo xam ne ay majuus lañ amuñ benn diine jàppuñ ci tawraat jàppuñ ci injiil góor mun leen takk góor ab jullit mun leen takk jaamam jullit mun leen takk bu dee jaam la nag mooy takk gor war naa xamal góor gi ak kilifa yi ne leen moom jaam la ndax nawle xaqi góor jigéen ji ak xaqi kilifa yi su la neexee ñu dugg ci su la neexee ñu ñàkk ci dugg bu leen naxee nag ne leen gor la fekk jaam la bañ may ko ndaw si gannaaw ko ñu xam ne moom jaam la ñu tasee Dang. وجاءت ذاك النبي عبد الجام نكاح أمتي تكجام من غير شرط جلد صار ما عدا مسلم لمي جلد جلد ممن كسر شرط jaam mën naa takk jaam ci lu benn sart lu mooy benn sart mooy na nekk julit jaam mënu takk jaam boo xam ne du julit waaye mën naa takk jaam xam ne julit la moom te amul beneen sart kon jaam mën naa takk jaam ci benn sart mooy na nekk julit bu dee jaam ahlu la jaam mënu koo takk wala xorru góor laa mënul takk jaam illaa idaa ma aslamat lu mooy bu jaam bi jébbaloo ina addima dem ñàkk na moom gor ga ak taw la can isa xaafa bu ragalee anaanata njaalo gor mënu takk jaam boo xam ne ni du jullit ak lu mën a xew même bu ragalee njaalo amul can pour takk gor it mënu takk jaam boo xam ne ni xéeféer la moom gor su dee jaamam jullit la nag gor mën na koo takk ci ñaari sart mooy xamul lum mu cenee gori te ragal na bu takku jaam bi dana njaalu soo boobaa góor gi mën naa takk jaam su ci amee doom na doom yi jaam la doon su ko defee kon gor mën naa takk ay góor moo xam ay jullit lañ wala ahlu kitaab waaye mënu takk ñoo xam ne ay majuus lañ mooy ñu amul benn diine gëmuñu leen ci Yàlla Isa gëmuñu leen ci Yàlla mën naa takk ñeenti góor moo xam ay jullit lañ wala ahlu lañ gor mën naa takk jaam su ragalee njaalo tàmm lu takkee gor yi te jaam ba it di jullit jaamit mën naa takk jaam ci lu benn sart bu fekkee jaam ba jullit la waaye jaam xéeféer moom di la ahlu kitaab la gor mënu koo takk jaam mënu koo takk mën nañ koo moom nag di joteeg moom def ko jaam rek waaye mënuñ koo takk daf ko jabar <coughs> su ma sharaa mu soobu mm. fi bayaani maa yi jiw ci leer laa xam ne dana dagan li rajuli ñeel góor xoroon moo xam góor la aw abdun wala jaam mm-hmm. jamu dajale ko mel ni saa yi si jigéen ñi fi ismatin waaxidatin ci benn buum insha nam soob na ko min xeyri ziyaadatin ci lu yokk li nga xam ne nii moom la góor mën a dajale ci ay jabar mm-hmm. te mënut dajale lu ëpp loolu mm-hmm. ci benn buum moo xam góor gi góor la wala jaam la moom la bëgg a jàngale góor dafa am loo xam ne moom la mën a am ci ay jabar waaye jabar yu ëpp loolu moom mënu ko am loolu nag ñeenti jabar la moom la woon wal xor wala abdu lahu an yajmaa ila axiri ay way yus dana dagan lil xori ñeel gor wala abdu ak jaam jëmu arbaa niswatin dajale ñeenti jigéen fi ismatin waahidatin ci benn buum gor wala jaam mën nañoo dajale ñeenti jigéen ci benn buum bi aqdin waahidin ci benn takk aw mutafariqin wala lu taqali ko bu ko neexee benn yoon mu takk ci ñeenti jigéen ñoom ñoom la takkandoo loolu dara nekkul ci bu ne neexee mu takk kii tegaat ci këre tegaat ci këre tegaat ci këre ba muy ñeent nga xam ne ñu ëpp noonu lañ koy defee <coughs> waaye lu ëpp ñeent moom xaraam na xaraa <coughs> iraat ay góor lañuy nekk fii ni kaayin ci arbaane yi ñeent maanaam mën naa takk ñeenti góor daal la bëgg wax mm-hmm. mu ne haada lii shuruun soobu la minu ci moom mm-hmm. fi bayaani nawit sa alladi ci leeral xaaj bi nga xam ne mm-hmm. yejus dana daggan aljamu dajale minu ci moom mm. li raxuri ñeel gor ah. bi xeeri chartin ci lu benn sart mm. wali abdi ak ñeel jaam mm. bi chartin ci sart ah. jigéen ñi nga xam ne gor mën na leen a takk ci lu benn charte ñoom lay jàngale ah. ak ñi nga xam ne jaam mën na leen takk waaye ci charte jaam buy takk gor foofu mu xamal leen moom jaam la ndax nit bu ko neexee du séer koo xam ne du nawle ومم الحرائر وما يقول مسلمات يجلد أو كتابيات ولا أهل الكتاب غور غور غو خمني غور لا من ناتك نينت جيغن يو خمني غور لا جلد لا ولا نينت جيغن يو خمني غور لا أهل الكتاب لا أهل الكتاب نك ما ينجاب شيء تورات ولا إنجيل دير أيه فير لا waye bokku ñu nga xamne amuñ benn diiné bu jugé ci asman fa yuzna la anita zawaja mu takk min al xaraayir ci gor yi mutlaqan nu mën a demee min waaxidatin commencé benn ila arbain ba ñeenti faqat donc góor mën naa takk ba ñeenti gor yoo xam ne jullit lañ war a ahlu kitaab la jaam nag mu ne waaw wooy juus dana dagan ba tey li ab di ngeen jaam zaalika loolu jaam mën naa takk ñeenti góor yoo xam ne jullit lañu wala ahlu kitaab lañ laakin waaye nag bi sharti an taalama ci shartaay mu xam bi ci nekk ak jaamam azawjatu jabar ji wa awliyaaw ak kilifaam benn saata ci baax mooy jabar ji na xam kilifa yi nañ xam ndax kan nawle xaqi kilifa yi la ak jigéen ci du jigéen ku ko neex rek mu dem sëyal bu fekkee du nawleem kilifa yi bu la neexee ñu bañ moom it bu ko neexee mu bañ ndax ñoom ñaar duñ ci am àq kilifa yi dafa am àq may doom koo xam ne nawlaam nawleem la soxna ci si boom dafa am àq sëy koo xam ne nawleem la te jaam nag moo góor duñ nawle dégg nga kon su na re tak gor su jigen faw soona ci dana xamne jam la kilifa yi xam ko ba pare ñu nangu su ba lu baxna ndax nawle gi bu ñom ñëpp buñ àndee ne dañ koy rotal fay rot kon bra mo tak gor da fay fekk gor sa xam wa yahsulu mu am arida d'accord bi taswijiha ci may ko lo ñal ko mën a ben ci ñaari walli na fekk jigen ji ak kilifa yeb d'accord ne man nañ ko may jam bi soo boobaa dagan ah ñu mën a mu ci ñaari wàll yi almaratu jigéen ji wa awliyaa ay kilifaam jigéen ji ak kilifaam yi nañ d'accord su boobaa dagan is ngir alkafaatu nawle bi nisbati lil xurati bu dee ci góor xaqun xaqal lahum ñeel leen góor moom nga lil xurati kilifa yi am nañ xaq ci may ndaw su jigéen ci góor su jigéen ci nawle <coughs> bu ko defee loolu lu jërë bàyyi xel la fayn tradaw nem d'accord na ñoom ñëpp ala yi ci rotal nawle googu saqata rot na jaam du nawle góor jigéen ci waaye kilifa yi am nañ ci àq jigéen ji am nañ ci àq ñoom ñëpp bu ñu dëppoo lii dañ ko rotal nañ dem may ko xam ne du nawleem dafay baax اسكن نولي بي حق جيغي ني اك كليفه والكفاءه النولا التي جاي قال هي مم حق حق لله ني يعني يالا الدين مول دين فقط دون نولا جاي قال مول حق يالا مول دين رك مانام الاسلام مو من زين ياك ديكر دي فو مو نيكو جوليت جيغي جي سونانغو سيل هيفر كليفه يي نانغو سيل غور غو خامني هيفر مو خم اهل الكتاب لا مانام امنا دين دفا جاب سي tawraat wala injiil maanaam yahud la wala nasaraan la wala jàpp ci benn diine ndem góor gi xeefeer la rek kilifa yeeg ndaw si buñ daakooroon du tax mu baax ndax loolu yàlla la te yàlla ngeen ko rotal waaye xaq yàlla mun leen ci dara dégg kon kilifa yi suñ daakooree may seen doom jaam su góor ndaw si d'accord baax na mais buñ d'accordoon may seen doom xéeféer du baax ndax julit xaq yàlla maanaam jëkkër ji nekk julit loolu xaq yàlla yàllaa ko dogal kenn mënu si dara moo tax fin rajo dam gërëm naa la maraatu jigéen ci waaw la yaa wax kilifaam ala an yatazawaja ci kaw mu takk jigéen jooju kaafirun xéeféer manaamam hmm. dana leen tere alxaakimu attekat ya attekat ba wa azzarahum mu yar leen bi ijtihaadi ci kem góorgóorloon hmm. jigéen ji ak kilifa yi bu ñu waxoon ne dañuy may seen doom ak xéeféer àttekat mm. bi dafay bañ ba pare yar leen dégg nga lum laaj bu fekkee daga nañ loolu sax xéeféer la ñoom far fal muslimatu julit waratan góor laa omatan wala jaam laa justu daga aneta sama jaam mu takku alkaafiri xéeféer maa ngi ci dëppoo mm. julit xéeféer mënu koo takk moo xam jurit ba gor su jigéen la wala jaam la jaam su jigéen wala gor su jigéen yëpp xéeféer mënu koo takk dafa xaram loolu ñëpp ci dëppoo moom <coughs> ma fu mu xawli naa lañ dégg suñu wax ne woy yus dana dagal li ab di ñeel jaam saa kuloolu bi charti an temps la ma si saataay ndaw si xam mm. ilaa axiri ba ci mujj ga luñ ci déggee mooy an naan ab danaka jaam mm. isa xarraxaa ndem war na jigéen ja waaw li ak kilifaay jigéen ji bi àndoo ne moom xurun gor la fu siq dañuy tas ni kaawu sëy ba abadan ba foofu jaam bi bu ñëwee ne gor la ba takk ndaw si te kilifa yi jàpp ne gor la jigéen ji jàpp ne gor la sëy boobu dañ koy tas ba foofu maanaam yor daw fekk gërëmuñ bii ci moom baane an mim gannaaw buñ xamee àndoo ne moom abdun jaam la buñ demee nag ba xam ne jaam la ñu d'accord ñoom ñëpp loolu kenn du ko tas way laa leen daa ko nañ falaa yuf saqu duñ ko tas wa kazalika nem at atte boobu la law radiyat bu gërëmoon bii ci moom almaratu jigéen doonal wali walis kilifa ga jigéen ji rek moo d'accord continuer sëy bi waaye kilifa yi d'accord uñ xam nga ne na wala xaqi kilifa yi ak jigéen jëpp sëy boo baaxut aw radiya wala mu d'accord bii moom al wali kilifa gi rek doona xaa walis ndaw si kilifa ga rek moo d'accord te ndaw si d'accordul loolu baaxut wajabala forcé na alxaakim àttekat bi hmm. man radiya ka gërëm na ma nag ndaw si alam ci naa yi ci bañ hmm. xam nga kilifa yi mën naa am ñoo xam ne dañoo ndaw si te ñoo ñoo yemoo hmm. ñu bañ bi danaa yéen kilifa yi ànd ak ndaw si foo ngeen bañ daal kilifa lañ cee d'accord su amaa bu kilifa ndaw si yëpp bokkee d'accord nag say boobu dafay continue di nga xam ne ne jaam la daf leen naxoon waaye buñ bañee rek du baax wala kenn bañ wa jaasa dagan na li abdi ñeel jaam ni kaaw amati takk jaam min xëyri chartin ci lu benn charte xanaa ka muy takk nekk julit jaam mënu takk jaamu xéeféer di la xéeféer bi wàllu kitaab waaye mën naa takk jaamu julit ci lu benn charte ay woy jus dana dagal li abdi ñeel jaam ani sa waja mu takk min imaam yi ci jaam yi min waaye dañu commencé ci benn ila arban ba ñeent hmm. wajëre am na tawlan can am laa wala déet jaam mën naa takk ñeenti jaam moo xam am na can wala amut can maanaam am na lu mën a takkee gor wala amut ko xasee ragal na zinaa njaalo am laa wala déet jaam bi ragal na njaalo wala ragalu njaalo mën naa takk ñeenti jaam si loolu benn sart ndax jaam kat takk góor mën naa mu jëfe ko hmm. ak lu ma am alal takk góor mën naa jëfe ko ñaareel bi mooy jaam dégg nga bu takkee jaam doomam yi nekk jaam loolu du gàcc ci moom ndax moom ci woom jaam la waaw doom yi nekk jaam moom mu nekk jaam ko gën a màgg comme que jaam la mën naa am doomi jaam kaana nekk na alamatu jaam bi li say di sangam aw li xëyri wala keneen jaam bi mu takk moo xam sangama ko moom walla keneen a ko moom loolu dagan na dagan na li adami lu xonqil aari ngir ñàkk aju gàcce la hu ñeel jaam bi bestir wala di ci jaam loo doomam ndax moom bu doomam nekkee jaam loolu du gàcce ci moom moom jàmb la fastir xaaxu wala di jaam loo doomam lay su nekkul enzama di gën a màgg mais stir yi ci jaam ko moom doomam nekk jaam gënu rëy moom mu nekk jaam kon jaam mën naa takk maa daa muslima lu may julit moom danañ ko ci sarta wax ne amul benn sart waaye ba mu des julit faw ka muy takk nekk jullit bu jigéen faw jaam bu muy takk nekk jullit bu doon góor lay takk moom mën naa takk ahlu kitaab moom jaam wala góorab jullit jël waaye bu dee jaam lay takk jaamam jullit rek la mën a takk waaye mënul takk jaam boo xam ne du jullit ndax jaam bu nekkul jullit góor mënu koo takk eh, moo xam góor gi góor ak jullit mënu koo takk moo xam góor la war a jaam mm-hmm. ay àndal abdu naka jaam laa yum naw duñ ko tere mm-hmm. min tasawujil imaay ci takk jaam mm-hmm. illaa bi shartin waaye dina mooy ci benn sart mm-hmm. <laughs> jaam ci benn sart rek lañ koy aaye takk jaam woo moom adamu islaami amati mooy ñàkk islaam ak jaam ba alati bi nga xam ne yuridu namm la ani ani mu takk ko wowatu moom muslimun julit la bu moom jaam bi julit la mënu takk jaam boo xam ne du julit <coughs> falaa yus dagan loo ñeel ko ani tazawaja mu takk ko xaw fan ragal min istirqaaqi waladil abdi si jaam loo doomi jaam al muslim bay julit li saadaata ñeel sangam yàlla kufaar yee xéeféer li tax ñu ne jaamab julit mënu takk jaamab xéeféer mooy su amee doom doom ji julit la ndax doom baay ji lay topp ci lislaam te comme que baay ji julit la rek doom ji julit la waaye doom ji jaam lay doon ndax doom yaay lay topp ci wàllu askan kiwàllu dégg nga njaameel ak yooyu yaay jee ci topp dégg nga comme que yaay ji jaam la doom ji jaam lay doon léegi kon doom ji jaam ab jullit lay doon ki moom yaay ji rek mooy moom doom ji yooyu li ñuy bañ mooy xéeféer bi nga xam ne ab xéeféer bu jigéen bi nga xam ne xéeféer ak moom jaam bi takk ko am ak moom doom doom jooju dafay nekk doom yi dafay nekk jaam ab xéeféer ndax ki moom yaay ji rek mooy moom say doom te yow jullit nga yow ki moom yaay ji xéeféer la say doom ay ju ay xéeféer mënuñ ko moom lislaam bañ jullit xéeféer di ko moom loolu jaaduwul sax jullit xéeféer mënu ko moom loolu lañ ci bañ moo tax mu ne ngir ragal ma sirqaaq wala dina abdi ci jaamloo doomu jaam ba al muslim bay jullit li saadaata ñeel sangi ndaw sa al kufaar yéeféer loolu lañ ci bañ ولهم رجور أي لا ديرت أي ولهم رجور لا يجوز لك أن لون يلكو أن يتزوج متك على متجام المملوكة بن مم للغير يلكرن إلى بسرعة شروط نومانية شرطة أشار جنة النازم ويكدو إلى أول أسنى بنم بخوري توهم مي غور داغون سي موم موي تاك جام جام بوخم مومنو كو تاك ناندي مونو تاك سا جام بوب بومو جام ak buum ak sëy naw la wantuwuñ buum la buum ak jaam buum ak la ñaar mun nekk waaye jaamub keneen yow góor bi mën ko takk ci ñett sart bu ci benn sart rotee doo man mën a takkati moom lay waykat bi du ñu bi xawli ci xam illaa isa aslama lu mooy mu jébbul ay illaa isa kaana lu mu nekk amatu jaam bi muslimatan di julit laa kaafiratan du xéeféer jaam bi ngay takk na nekk julit bu dee xéeféer yow góor gi mënoo koo takk ndax boo ci amee doomit doom ji yaay yaay ji lay topp ci wàllu njaam ak yooyu hmm? <coughs> su ko defee comme ndax doom yaay lay topp ci wàllu askan hmm. su ko defee yow sa doom ji xeweeru koy moom ndax ka moom yaay ji mooy moom doom ci loolu lañ ci bañ niñ ko bañe woon ci jàmm bi <coughs> waa saaru ñu ne ilaa saaniya si ñaareelu sart ba wa saalisu ak bu ñetteel bi xawli ci waxam in adima tawla ida xaafal anat bi sukkooni taa yi si sukkoon taaga li raw yi ngir jeexal way rek moo tax ngir mu daanee sukkoon rek a tax mhm. mu def isa xaafal anata la waroon doon ay wasaani ñaareel ba min surutul jawaaz yi si sartaay da nga nag takk jaam mhm. aneeko la mooy gorga aadima ndaa ji ñàkk li taw li ñeel can ay almaala alal alazi ba nga xam ne ite wasul dana jot li ko bii ci moom yaa zawaajil xurati ci takk gor su jigéen mhm. wala dann yitan bu suufi la ñaareelu sart bi tax góor mën a takk jaam mooy amoo alal joo mën a takkee gor mhm. di la góor bu suufee la sax amoo alal joo ci ma def ba mën koo takk yow mën ngaa takk jaam mhm. ndax fere waaye naaw jaam mooy gën a yomb bu góor ah. loolu mooy sart ñaareel mhm. jaam bi ngay takk na nekk jullit yow góor bi ñaareel na fekk mënoo takk gor mënoo takk góor loolu mooy wax wa saalis ñetteel bi an yaxsha mooy mu ragal alwaquma tàbbi fi zina si njaaro mhm. bi an kaanat te mu nekk shahwatu bànneexam xaalibatan daa ji not laa yaqdiru atnut ala kasra ci damm ko mhm. wala bi saw mi di ci koor la mhm. ñetteelu sart ba mooy yow gor gi boo takkut jaam da nga njaalo ndax sa bànneex dafa jégg doyoo boo xoolee sax du tax mu dañ dégg kon yow takk jaam rek mooy moo sës su fekkee boo takkut jaam njaalo taamoo loo takkee gor te jaam boobu jullit la mën nga ko takk waaye bu dee jaam bi yéeféer la ak lu mën a xew di la ngeen njaaloo mënoo koo takk ndax bañ nga jaamloo jullit ci ron xéeféer bi mooy amoo loo am nga loo takkee gor mënatoo takk jaam dégg nga mm-hmm. waaye bu fekkee am nga xaalis boo takkee gor waaye xamoo ko yow da jàpp ne moo dara nga dem takk jaam baax na gannaaw ga bu xaalis boobu feeñee it sëy boobu day continuer boo ñàkkoon it ganaaw ga nga am nga dem takk jaam ba pare door a am ba léegi sëy bi day continuer ndax nga koy takk wéeroon na ñetteel sart ba mooy nga ragal njaalo bu fekkee ragaloo njaalo doo mën a takk jaam waaye nag su fekkee da ngaa takk jaam fekk yaa ngi ragaloon njaalo gannaaw gi ragalatoo njaalo du tax nga fase ko mm-hmm. sëy bi day continuer wasaada yokk na baadum ñenn ci borom xam-xam yi chartan rabi am sartaam ñeenteel ba woowu moom taalluqu xal bi mooy aju xolam bil amati ci jàmm bi taalluqun aju goo xam ne yax cha dana ragal minu ci moom waxuma tàbbeem fil faachati ci njaalo ñeenteel sart bu mu na fekk jaam boobu même jaam boobu jëmmi jaam boobu waa ji bëgg bëgg goo xam ne bu ko takkut dana njaaloo moom xam nga sart boobu daanaka rek hmm? waxoon nañu su fekkee dafa ragal njaalo naa takk jaam dégg nga léegi nga ne ko balaa ngaa takk na nga fekk jaam boobu noonu nga bëgg a takk nga bëgg ko bëgg koo xam ne boo ko takkul njaaloo moom mm-hmm. léegi su fekkee tollul foofu nag waaye moom bu ko takkul dana njaaloo keneen benn la rek kon charte bi gën a xam xamut loolu mm-hmm. nit ki kay bu fekkee dana njaaloo rek bu takkul jaam ah mm-hmm. moo xam bëgg na jaam bi bay bëgg a dee rek bu ko dana njaaloo jaam bi wala boog du njaaloo jaam bi dana njaaloo keneen njaaloo njaaloo rek la dafa xaram rek Mm-hmm. kon jaam bi nga bëgg a takk moom même bu la wóoree doo moom waaye da nga njaaloog keneen man nga takk rek mu fegal la njaalo rawatina bu fekkee da nga njaaloog moom mm-hmm. wala illatu lay sabab fi manil xuri ñi tere gor min taswijil amati ci takk jaam alxawfu mooy ragal ministre xaaqi wala di si jaam loo doomam li sayid yaa sangam mm-hmm. yow gor bi boo takkee jaam soo si amee doom doom ji jaam lay doon te ki moom yaay ji rek mooy moom say doom loolu lañ loolu moo tax ñu xaraamal ko lu mooy charte yi dajee ci mooy nga ragal njaaro taamoo loo takkee góor mm, te jaam bi nekk jullit nga déggee ne bu charte boobu la man mën ngaa takk jaam yow góor moo tax wala xaasil li am mooy àndal xawra na ko gor ya yuus dana dagan loo ñal ko ni kaa amati takk jaam bi shurutin mutaqaddima ci charte yu jiitu bi maanaam maanaam mooy àndoon moom laay asamu du bàkkaar bii ci moom boo takkee jaam taxul nga am benn bàkkaar buy sart yi dajee laakin waaye nag awlaadu ay doom ari xaawoon ay jaam lañu ala kulli xaalin ci nu mën a demee boo takkee jaam moom boo ci doom say doom jaam rek la mën a doon allahuma lu mooy ilaa ni tazawaja lu mooy mu takk minel imaa yi ci jaam man ka nga xam ne laa yuutu dagan li sayda ñeel sangam istiqaaqu wala di jaam loo doomam dégg boo <clears throat> takkee koo xam ne ni hmm. boo ci doom mënul nekk jaamam ba li fi nekk yoo toq dañuy goreel xale yi ci xale boobu bi mu jëradil wilaadati ci rafleg juddu ga rek loolu dara nekku ci maanaam nit ki nga takk sa jaamam baay xam nga sa baay nit mënu moom sëtëm hmm. boo takkee sa jaamam baay am ci doom doom jooju sëtam lay doon ki moom yaay ji hmm. doom ji sëtam lay doon te ah. nit mënu doom mënu moom sëtam kon loolu dara nekku ci nit mën naa takk jaamam baayam ndax say mbokk yi nga bokk ak ndey ak baay wala baay wala yaay wala say baay jëm kaw ak say maam ak say yaay wala say doom ak say sët mënoo leen moom ka amati asli ni ki jaami cosaanam waa amati fari ak jaami bànqaasam mhm. sa jaami mm, nun tudd <coughs> baay man mhm. nga leen takk ndax boo leen takkee boo ci amee doom doom ji sët lay doon sa baay wala say yaay wala say maam mhm. te du leen mën a moom kon doom ju gor lay doon lol man na nekk jam dom doom nee na mën nga koo takk doom li gëna wor moy mooy mën tak dañ ci wuté way li gëna siw moy mooy tak sa jam dom doom sa jam dom doom comme sa jam la rek waye bo ci amon doom it doom ji ci bom mm, gor lay doon parce que doom ji mbokki sang ba lay don ah sa doom mo am jam nga tak ko joteek moom ba am ci doom doom joju mbokki sang ba lay doon te mënu mënul mbokam Hmm? waaye daganut ndax alali doom dafa mel ni sa alali bopp te takk sa jaamu bopp daganut ittifaaqan ci dëppoo fooy jur sax dagan ne rajul ñooy góor anet sa waja mu takk amata abi jaamu baayam wa amata ummi ak jaamu yaayam min xëy ci benn sart li ma alim te ngir li mën naa takk jaamu baayam ak jaamu yaayam ndax bu ci amee doom doom góor lay doon ndax baayam ak yaayam mënuñoo moom seen sët wooy jur sax la woon ñeel sa waja mu takk amata wala di jaamu doomam zakaran góor la aw war a jigéen sa doom bi moo xam doom ju góor la wala jigéen nee na jaam mën nga ko takk waaye wax naa loolu li gën a siiw mooy mun nekk waaye boo ci amoon doom it du tax mu nekk jaam parce que doom yi mbokk yi sang ba la doon sa doom ju góor wala jigéen nga takk jaamam mën naa nekk moom fen wati a nem laal na ko min xëy àq dañ ci dudu takk alaya ci moom saara du mujj ne moom lu ko di jaam la wu ñeel ko bi mujj rek di wat i ci laal ga sa doom bu amee jaam nga ñëw rek seeg jaam boobu te takkoo ko dañ naan la yaa ko moom léegi yow yow yow baaji yaa seeg sa jaam doom te takkoo ko dañ naan la léegi jaam bi sa alal la waaye da nga fay doom ci xayma ba waale war na ko xiimatu a di ñeel xale ba yet fu mu jox ko loo ñeel ko bil hukmi ci atte in kaana nekk na xan yéen di aji riis bu nekkee moo di mën di aji ñàkk wurtu bi ko bi ci moom fii sa doom dafa am nga dem seeg jaam te takkoo ko dañ naan la nañu xool jaam bi li muy jar nga jox ko sa doom ci bu fekkee am nga boo amut ñu topp la ko muy bor ndax bàyyi mënut seeg jigéen doom di seeg moom loolu nag mooy su fekkoon ne doom ji mosu seeg jaam boobu amaa doom ji su mosoon a seeg jaam bi bàyyi ji ñëw seeg moom ñoom ñaar ñëpp lay xaram far te it doom ji boo xam ne seeg jaam bi moom bàyyi ji mënatu ko takk mënatu seeg continuer seeg moom waalam xamal andoona le am mbaam laa yusu dagan li rajulu ñeel góor xuran góor aw abdan wala jaam an yasida mu yokk xalaa arbain niswatin si ñeenti jigéen kun na nekk na xalaa yara di góor ay imaan moo xam góor la wala jaam mënu takk lu ëpp ñeenti jigéen moo xam ñeenti jigéen ñëpp ay góor lañ wala ay jaam lañ su ko defee dafa am ñoo xam ne dañuy takk lu ëpp ay jabar yu bëri suñu waxee ne taara la taara nu koy takkee taara mooy koo moom waaye koo dem takk ko joxe cen moom jabar rek la ay kese nga dajale wala ay jaami kese nga dajale wala ay góor ki jaam ndem danga leen a takk hmm. mënoo ci am lu ëpp ñeent su dee da ngaa moom jaam mi moom mën nga am lu ëpp ñeent. ndax bu loo loo moom ciy jaam rek mën ngaa joteeg ñoom waaye nag takk moom mënoo ci ëpp ñeent. Mm-hmm. bu ko defee takk loo ba ñeent jabar nga wax yenn yi ay taara lañ takk na ba takk taara kenn xamul loolu mooy lan <coughs> loolu takk loo ba rek la xaraam <coughs> la daal. aw baaxdum wala ñenn ñi sax xaraayiru ñooy gor wa baaxdum ñenn ñi imaamul mooy jaam biir maa yi ci dëppoo mm-hmm. bu dee yenn góor jabar yi gor lañ yenn jabar yi jaam lañ mënoo ci ëpp ñeent ndax jabar jabar rek jabar rek loolu nag borom xam-xam yëpp ci dëppoo moo tax lii jaahil rek moo koy def takk ay jaam ba pare naan ay ay taar lañ te na ñeent loolu jaahil rek koy def ndax borom xam-xam yëpp dëppoo nañ ne loolu mënu nekk ñeent takk moom ñeent rek nga mën a yem moo xam yëpp ay gor lañ wala yëpp ay jaam lañ wala yenn yi gor lañ wala yenn yi jaam lañ nem da nga leen a takk jabar lañ ñeent rek nga mën a yem fa nikaawul xaamisata séeb juróomeel ba faasidun aji yàqu la bi ittifaaqil ay immati ci dëppoog njiit yi al arbaa yee ñeent yuf saxu dañ dañ koy firi bi xëyri talaaqin ci lu fase séeb juróomeel dafay yàqu ñeenti ngir yëpp dëppoo nañ ci ku takk juróomi jabar juróomeel ba baaxut dañ koy tas du fase sax ndax sëy amu fa dañ koy tas baaxut bu fekkee xamoon nañ ne li juróomeel sax añ leen di caw ndax dañuy njaalo bu dee jotee nañ bu dee xamuñ ko ñu tas ko bu ci doom amee nag bàyyi jee ko jur ndax dafa wéeru ci ak sëy hmm. wala ci faatu déet gerte li xawli zahiri wax ak ngiram zahiri yi nga xam ne ñoom zahir nu suus yi lañuy jël hmm. ñoom ñoom duñ taawil ñoom li muy niru rek loolu lañuy jël hmm. alladina ñi xam ne yu jawi zuna dagan lañ daganal lañ ti sax ni si watiñ juróom ñeenti jigéen ndax dañu alquran dafa ne fan ko a taabal ko mel ni saa mas naa ñaar mm. wa ak ñett ñu ne waagu waaw to tofal mm. ñaar boo tegee ñett ñu ne mooy juróom wa rubaa ak ñeent juróom nga def ñeent mooy lan juróom-ñeent juróom-ñeent jigéen dagant <laughs> fekk waaw gi firiwul loolu waaw gi maanaam aw mm. is ngir asiyaadatu yokk ala arbaa niswatin si ñeent jigéen min xasaay si mu ngi bokk si jagleel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam takku la ñeent jigéen yonent moo ko jagoo wa hada lii bi nisbati zawjaat bu dee ci wàllu jabari la jabar mënu si am lopp ñeent waa maa watul imaay waaye laal jaami bil milki ci moomeel falaa xadda déet doyo di ko ñeel bal li fi nekk lahu ñeel na ko an yettasira mu jàpp min imaay ci jaamam asara imaayin fukki jaam aw ak sara lu ëpp aw aqala bu dee jaam nga moom di sëy ak ñoom hmm. kenn du la tënk loo am ci jaam rek mën ngaa sëy ñoom hmm. yaa xam bu ne neexee nga tànn fukk wala ñaar fukk wala téeméer wala ñaar wala ñett yaa xam ndax dañ leen a moom sa alal lañ nag wërsëg la ku nekk loo ci am waaye nag ay jabar moom mënoo cee takk lu ëpp ñeent di layee na yenn yi jaam lañ jabar jabar rek la in uridu illa islaaha mastata'tu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa rahmatullahi